yéen a ngi teewlu seen seen Rewmi 24 TV. Bougane Gueye Dany Kader Dia et Cheikh Yérim Seck libéré nañu leen nuyu naa leen donc lii nag je bari que ñu ko woon parce que liñ leen di toppee. pour commencer à trouver les gens qui ont été nous divisons des fausses nouvelles, diffamation ou l'insulte publique de ce top moi mandat de dépôt. Parce que le fait qu'il y ait article qui a maintenu, il y a article 80, article 255, y a maintenu, forcément, de Dieu a dit, il y a une insurrection. Donc, je pense que nous sommes là, c'est à ce que nous sommes au Sénégal askan bi nga xam ne démb bëgg di démb da doon xeex pour que justice bi moom boppam pour que benn politicien du leen mën a manipuler mais pour que les dossiers politiques ñoom ñu jël seen ay responsabilités jëf si li nga xam ne loolu leen yoon may donc lii nag je pense que war na nangu ku nekk nangu ne rupture bi doon wax démb ak barki démb en tout cas lii. ay signes la yoo xamante ne nii mooy wane ne même bu fekkee rupture bi amul en cent cent tamit am na lu si soppeeku parce que bu fekkoon ne affaire politique la ku mel ni Bougane Gueye Dany ku mel ni Cheikh Yérim Seck ku mel ni Kader parce que dafay def ay chronique am nañu benn poids boo xamante ne nii dañuy wax ñëpp di leen déglu bu ñu demee bu fekkoon politique rek la kon duñ leen bàyyi li ñu def mooy dañ di téye ci biir kaso bi pour. ñu mën a seen poids mais li ñëpp doon commencé wax naan Bougane dañ ko jàpp parce que coalition sàmm sa kàddu la ragal lii ware na na yoonu politique bi nekkul woon jàpp bi nga xam ne jàppoon nañ leen ko kon dañuy wax bravo à la justice sénégalaise mais bravo aussi président de la république parce que bu ko neexoon wala premier ministre ñu dugal ci seen loxo ba ñu bañ leen a bàyyi. bu ko defee ñu def ko affaire politique donc kon dañuy sant yàlla sant suñu si suñu réew di wax ne nag nañu nekk ay responsable xam ne réew aussi du rekk am na démocratie walla dañuy xeex liberté d'expression lu neex waaye wax lu neex waaye def nañu xool kàddu ñu yëkkati donc nu mu gën a rafetee mais justice aussi bu nit waxee dara loo xam ne teguwul ci yoon nañ ko laaj ko ay preuve bu ko joxee ñu bàyyi ko mu dem bi këram c'est parce que lii day wane ne Sénégal mu ngi ci yoon boo xamante ni nii yoonu rupture yoon changement systémique ak yoon boo xamante ni nii justice bi donc dafay indépendant libre aussi moom boppam